leeral tu TV te mooy jox lii di askan wi xibaar yu leer wér wóor te teg ko ci màndu day indi li nëbb woon askan wi jox leen ko ci réew mi ak biti réew wax jépp day woddu del topp tey abone tem boole kook déglu partage tas bépp gox lu ñëw de bum yendu bépp gox lu ci mboolem banqaas yu daaray islam international ak leeral tu TV international une heure du matin tegal na quarante minutes masjidil aqsa sun jumaa ji tedd ja ci réewum Palestine deux heures du tegal na quarante minutes ca masjidu aya suufiya ca Istanbul ca Turquie masjidu Quba ak masjidul qiblatay nekk masjidul haram ak masjidu nabawi maayi sala salaam ca madinatul munawara asalaamu aleykum ñu ngi leen di nuyu foo leen nekk ci biir Sénégal ak àdduna bu wërngal guddik samedi 26 octobre at yi 20 24 22 ci rakk weeru rabbi wa alayhi ci réewum Sénégal réewum salawaatullahi wa ci moom chef mbindeef yi yonent yàlla xaamid salawaatullahi wa taslimaatuhu alayhi di julli miliyaaraati jullee ki ci mboolem yonent yi anbiya yi salawaatu rabbina wa alayhim di ñaanal saxaabam yu tedd ay yi ngërëm ridwanullahi alayhim ajmain 19 direct ci xaaray islam international xabaar yi bitim réew yi ci wolof ci yaatal la fi gën a fës wërngalu xabaar yi daañu dem ca Guinée Conakry buñ fa jógee Soudan du Nord ak yeneen réew masin bi alxaaj gàmmu jàngeen jëf gërëm nañu leen seen ànd ak ñun islam international ñu leen ko junjee woon ci njëlbéenu xabaar yi dañu naan coow wuuteel réewum Guinée capitale am bokk na kii parti euh, Alpha 3 ba di RPG ak parti Alhaji Mouhamed Cellou Dalein Diallo ba di UFDC ñoom daal fi mu ne nii ñu nga cay waxtaan ndax daal dañoo bëgg bu dumb yaa coup d'état lankee daal ni day bokk ci élection daal. ñu mën a booloo ba nga xam ne daal wenn lay soldaar yi duñ ko mën a am ñu mën leen a gañe gañaay lu jéggi loo xam ne daal ñëpp danañ xam niñ leen gañee ñaaw na bu daal ñu folliku sànniwu lu ca mën di xew nag dumbuyaa fi mu ne nii sax élection dana amam déet loolu ku dul yàlla ak dumbuya daal ak xëy na ñu ngi ci waxtaanal xamoo ci dara parce que daal décembre lay waxoon daal ni buñ ca àggee defee élection mais décembre la ca des bariwul sawaay naanewu comme ndox lu ca mën di xew daal ñoom ñaari parti yi daal nee nañ sawaay warta bokk te dafa war a dem ca camp soldat ya wala mu seet fu mu jëmmee bu lankeen day bokk daañu ko sot soto wulli ko ba mu yooy ci waxe jërë ngeen def yi ay woon fa taal ma ngay di tàkk yi jërëx jërëx yi ñaawte fii nag ma ngay wéy jëm ca civil yi nga xam ne seen yoon nekku ca ay fitna daal yuñ fa taalat yi daal cam pitalante fëggantey bal fëggantey bal jur na fa nag ay civil yu ci seen yéen nekkul yu faatu cinquante civil daal la ñu ne ñoo ca faatooti muy dal mbir mu tarati ti sati léeg-léeg nag dañ koy jiñante bu ñeenee soldats yi régime ba ñeeni force de soutien rapide ya muy dal mbir mu ñaaw moo xam ne daal bànneexub soldats yi rek moo ko sabab ci nord Soudan réewum France buñ sukkandikoo ci këru tasukaayu xabaar ga tudd Afrique intelligent intelligent moom ñoom daal nee nan nicolas jargoji di njitul rewul france la won président emmanuel macron da ko envoyé côte d'ivoire ngir dal mu waxtaan ak euh, alassane 3 troisième ngir dal mu baña a ci alassane 3e du alassane 4e lol dal lañu xamlé ndax nak alassane 3e li ñu ko wax daal dana ko nangom déet la ci kanam rewul li en tout cas nee dal nicolas jargoji dajé nak mom moom waxtaan ak moom wax ko dal le président macron sàkk te mom ngir dal ay bërët bërët bañ a am foofu ci réew Côte d'Ivoire ak it ay looxóor mën ko faa bañ a dal bu àggee ca fa troisième moom ngay jeexe daal na ci yem te bañ a quatrième Alassane nag daal nangu naan déet loolu lépp daal leeragul en tout cas quatrième daal la bëgg bu nu àggee incha allah octobre comme waxtu wii déwén incha allah daal loolu la loolu la Alassane troisième bëgg réewum ikren tiitalante ma daal ñoo Russie ma ngay wéy Russie daal moo fa xalab daal loo xam ni ma ngi ko xalab ca immeuble benn xale su jigéen su ndaw moo ca faatu juróom ñeneen blessé ca ca daal région booba la amee diggante Russie nag ak Ukraine seen xare sa fi mu nii am na lu toll ci ñaari at ak juróom ñaari weer ak euh, yaari fan muy mbir mu doy waar jërë ngeen jëf ginnaaw loolu réewum Afghanistan la ñu wutali ñoom day seen doom ñoo blessé la ko waral mooy ay tiir yu jóge ca garde gardien de la révolution yu Iran daal lañ ñu moo leen se ñoom nag ca côté frontière ba lañ nekkoon dañu ni sax ay migrants lañ lu ca mën di xew daal kenn faatu ca waaye blessé nañ ci ay tiir yoo xam daal garde yu Iran yi ñoo ko tiire par nag xëy na lay war a doon en tout cas daal blessé nañ ca réewum Côte d'Ivoire parti ba tudd. parti ba tudd PDC yii ñoom day gaa yi ko tàmbalee salfaañi fi mu ne nii xaddi ndax daal euh, Cheikh Ahmad Tidiane Thiam moo jiite léegi parti ba wuutu ca Henri Konan Bédié ma ko jiite woon moom moo war doon seen candidat incha allah ca élection ya mais daal am na waa junne bu xiite ca parti ba daal tudd Jean Louis Boulon euh, ni daal moom day doon candidat ab député rek bokk ca parti ba mais daal nee na moom candidat lay doon. ñu bari daal jàpp ne fi mu ne a tàmbali na lii nag baaxul ci parti politique dafay néewal doole mais sawaay daal moom nee na day doon candidat toppal ca Cheikh Ahmad Tidiane Thiam jërë ngeen jëf réewum Iran day la leen Israël defoon démb ca guddi daal ba faatal leen ñaari soldaar am yéen fa yàq daal Israël sax cay waxam dani vingt cibles yu armée iranienne daal la raja xaatee Iran nag wax jooju soriwu ca saxal na daal ñaari soldaaram faatu na mais Iran daal nee na boo daal bëgg naa fayu ca lii nga xam ne Israël def na ko ko loolu daal la xamle Israël nag moom nee na cong mu yem sax la bëggoon a def waaye daal lam yéene woon mujj ko ëpp ak cible yooyu mu bombardé cay waxam Donald Trump daal fi mu falu rek la bëgg ma ngay jéem a mos moslu di wax jullit ci Amérique naan bu ma faloo fexe daal ba anarchie ak fitna ja Moyen-Orient mu mën a arrêté mais lii am nañu ne dara Donald Trump day neew parce que moom mii moo foqarti woon suufus Palestine joxoon ko waa Israël ñu def fa seen euh, ambassade ca caay caay bis boobu faatoon na fan weeri julit ak juróom-ñaar jàppoon ñu bari kon nee na Donald Trump day tàcc jërë ngeen jëf ginnaaw loolu leneen ñoom Israël ñu ngay wéyal seen ñaawteef ndax dal ka nga xamni moy directeur bu maison de la presse bu bande de Gaza neena dal Israël tay ji ca bir hôpital ba nga xamni mo tuddu tudd Kama Kamalu udwan tay ji ben xale dal dafa Israël faat béréb yoy nak xam ngeen ni fi ne ay daw laq dal ñoo ne yenn ti hôpital waye tay dal Israël def na fa jëf ju bon bi ñaaw mom Israël bisu tay bu dee ci suba gi rek faat na benn deux euh, blessé dix huit loolu daal la defoon rahimahumullahu taala ci suba gi waaye sànq nii defaat na weneen ñaawteef ndax daal euh, am na ñeneen ñum faat ñoo xam ne trente personnes lañu ca ay frappe yoo xam ne da koo sànni ca juróomi kër euh, daal ca dëkk ba tudd baytu laahiya nekk ca noor bu Bandagasa ba faat ca fanweeri nit yi muy jëf ju ñaaw rahimahumullah kon jëf yu bon yi mu def daal moom kàccoor bu bon ba kon bisub tey faat na daal juróom fukki nit ak ñaar ca bande Gaza gépp ñoom noonu yàlla yal na yàlla alak leen ñoom Israël nee daal ci waxtu yi ñu weesu gëjël nañ leen juróomi soldaar ñu dee ca mbon ak caay-caay ku kéefër xabaar bi ñoo ko waxal seen bopp nee na nag ñu nga dee ca sud bu Liban daal lañ tuskare ñoom saay-saay yéefar yi bon yal na yàlla alak leen ñoo seen gaa yi njëkk a dee ak ñay dund ñoom yal na yàlla tuskare leen kon daal lii bokk na ca la nga xam ni ñoo ko waxal seen bopp ñoom Israël ba tey wax nañ leneen nee nañ daal seen juróom benn fukki soldaar ak benn délaissé euh, benn bés euh, vingt-quatre heures yi ñu weesu daal nee nañ lañ délaissé la juróom benn fukki soldaar ak benn xabaar yi yëpp nag mooy Israël di waxal boppam ci boppam te nee na ñoom ñu ñëpp ñu nga blessé ci sud bu Liban loolu daal la xam ne yàlla nañ far dee ñoom ñëpp ñoom Israël nee nañ cinq mille junni ak téeméer ak juróom fukki soldats blessé le nañ ko ñoom waa Israël ñoo waxal li seen bopp ba bañ tàmbalee daal di songu Palestine ak léegi loolu daal lan wax ci seeni wax nee daal cinq mille cent cinquante soldats lañ blessé nee nañ nag sept cent soixante quatre ya juróom-ñaari téeméer ya maanaam ak juróom-benn fukk ak ñeent ñoom daal euh, ay blessures yu tar lool lañu am loolu daal la Israël xamle euh, nee na it mille cent cinquante deux ñoom. la leen blessé daal safara la loolu daal lañu ñu xamle ñoom Israël lii tamit ñoo ko waxal seen bopp réew mi Jordanie ñoom seen police ba tey def nañ ñaawtee fu bon ndax daal ay jullit ñoo fa doon ñaxtu Jordanie xam ngeen ni réewum naarum jullit la doon ñaxtu jullit yi Palestine néew doole waaye ñoom saay-saay yu bon yooyu di police daal ñoo leen doon song di leen jàpp ak fitnaal jàppalante ñu bëri tribunalité ñu bëri muy jëf yi bandi way ju tuskare ji daal di condamné fermement réew yi yëfar yi sax bàyyi nañ seen nit ñuy ñaxtul Palestine kon réewum jullit mu koy tere ba ci final say nit ak leen jàpp loolu caay-caay du jéggi dayo la réewum Nigéria de ak réewum Libye am na lu xew seen diggante dañ ne daal dañ doon def ay football yi wala boog ay waajtaay bëgg a def yi football Afrique ci at mee ñu jëm wër-wër laan ya def nag euh, daal. ngir di mën xam ñen ñoo tey bokk ñen ñoo tudd bokk ñoom ñi daal dañ faa demoon ñu ne fa qualification waaye ban demee daal neen ba ca aéroport ba kenn topp too leen fa leen bàyyi daal nu laajte ka fa sonn dal di mer gedd di ñibbi gars yi nag nee nan lii nii ban ko defee daal euh, ñooñu ñuy tuddee kaaf daal dina yor football Afrique ba dafa mel daal ci waxiin dañ ne leen da ngeen di kannasu kannasu lu ñoo leen gën a kannasu ne leen bu dee looloo léegi Libi gagné na leen te 3-0 daal la leen gagné donte football leen waaye daal jox nañ Libi ndamul 3-0 lii nag am na ñu ne kenn xamul lii lan la am ñu ne daal kaafa tey am ñu ne kaaf daal day caaxaan parce que ñii nii bañ fa demee dañ leen war na saytu comme ba fa comme daal nanuy saytoo ñoom Libi Nigéria nag mer nan mais daal affaire ba yàqu na. jaa ngeen